sama gaay journaliste yi xamu journaliste yi yeen ñi taxaw di jabalise photo bi nga xamanteni jambar ji xarekat bi and nako le président Ousmane Sonko mu mett leen ba ngeen di taxaw di ko mettitlu waaye yéen Moussa Wagnas mu fi gàddoo xeer wi fu ngeen nekk bin ko falee président assemblée nationale fu ngeen nekk président assemblée nationale moo ëpp premier ministre parce que mooy deuxième personnalité de l' moom photo woowul ak ku ko yoroon de moom deuxième personnalité de l'État moo yoroon xeer bi booba lu ngeen ci wax fukki at toog na ko ci assemblée nationale bi kii mu ci àndal ministre pendant douze ans la nekk ministre Serigne Mbaye Thiam te booba waxu leen ci gis nga lañu leen waxoon démb bi ñu nekk ci opposition bi moom lañ leen wax tey mooy président Ousmane Sonko ñoo ko fal ñoo koy jàppale ba pare ñun ñooy premier bouclier boo xamante si ni bala ngeen a àgg ci kawam ci ñun ngeen njëkk jaar mooy duñu nangu ngeen koy fenal ci gratuitement waaw moo tax faw ngeen jëm wuti xam-xam taxaw chroniqueur la journaliste la journaliste da ngay informer juste et vrai mais yi ngeen di wax ni du waxi dara waxi balda poy dala le président Ousmane Sonko insha allah dana photo ak ñun ñëpp laa la wax parce que ay jàmbaar lañ ci xeex bi bi bàyyi leen li ngeen deuxième personnalité de l' état moo gàddu xeer wu ngànd wi kii mooy ñas borom xeer wi